waris al qadim wilaayata doomoo di baay wal mustafaa waris al qadim bi fali wa bi joodi wa sujaay doomoo di baay fal mustafaa waris al qadim bi noori wa jamaali wa jalaali doomoo di baay Cheikh Moustapha wal Moustapha waris al Xadim bi sirrihi wa bi xilmihi wa bi ilmihi doomoo di baay fustum bi kawni al Moustapha xad jaarakum xad jaarakum ma ahlihi ya ahla gaay fustum bi kawni al Moustapha xad jaarakum xarsaarakum ma ahlihi ya ahla ngaay yéen waa Kajoor kañu leen bu baax war ngeen a kañ ngir Moustapha ubla mi Mbàkke ja waa walaay ya ahla ñaaxeen ñaaxu leen Cheikh Moustapha ñaaxaat na leen bi kalaami soog a ñaagi ngaay jurbel du leen jarfal ndaxam Moustapha ñaagaat ne leen bi kalaami soog a ñaagi ngaay ya ahla mbaakol bàkku leen Cheikh Moustapha bégalaat ne leen bi kalaami am ngeen médaille daaroom ya mooy Tuuba usuma bi ku fa mënta dem na siyaare ji ñaaxeen maate ngaay yaa ahmadu bni muhammadin li muhammadin yawmal qiyaamati sant leen sunu way waay Cheikh Moustapha yaa neexaan dal dal nga xel wa man nga ruuyi fi àgguloon jébal sa baay wambat gumba yi boot la fa ñuy taggal fa noo góor ak jigéen yaa leen di jox ay càngaay ku la daw nga dab la fay nga fay le te doonoo fay mboolem jirim yéeg baayo yi yaay seeni baay yaa nuy teral yaa nuy yërëm dinu may dërëm yaa nuy defal yaa nuy defal yaay jenn waay yaa nuy teral yaa nuy yërëm dinu may dërëm yaa nuy defal yaa nuy defal yaay jenn waay yaa yor teraa ngay mag ña bàmba yoraale woon moo tax yilif nga ba jàll saalum jàll xaay yaa yor teraa ngay mag ña bàmba yoraale woon moo tax yilif nga ba jàll saalum jàll xaay yaa xam teraa ngay waa Kajoor ak waa Bawal yaa yar sangu buur yi fi daa dem làmbaay yaa xam teraa ngay waa Kajoor ak waa Bawal yaa yor sangu buur yi fi daa dem làmbaay waman nganaar wa mat wolof kenn réeratul yaay tiitaru baa doole yeeg ñi fi sant njaay yaa Moustapha abnu Moustapha abnu Moustapha yowmal xiyaamati rangle no fay médaay miskin ya daa jooy Cheikh Bamba ci wam sasin tarloo nga seen rongoñ yaa mat la qowaay mag jàqatul ndaw tiitatul réew mépp bég ngir moslukat yi musal nga leen yaa fii sa baay yaa tey cëgub lislaam ñu saqi ko ba doxoo yaa tey ñagub lislaam ñu saqi ko ba doxoo yaay jën wu rëy yaa tey mburit yi seen mbaar mi naay yaa boole gàllu ya boole jën yel yëpp car antal ximaadu li ahlina yaa am wilaay yaa boole gàllu ya boole jën ye yëpp car antal ximaadu li ahlina yaa am wilaay yaa boole dong yi boole bokk yëpp yu yor yal nañ fi def ndanja moo dundal fawi waay taalub mu tiriile yaa ko yor yaa tee mu fay maa lay xambal sabtaal du fay saw nit du daay yaa mutabaabnu mutabaabnu mutabaa yawmal xiyaamati boole leen nu jëmbar ya waay Musa kalaamullaahi moo noon Mustafa waññil juróom fukki julli yi matulab jataay Musa kami mooy lapputoob milem Mustafa yaa moom jumaa jee xarnu beeg ña gëmoon sa baay Musa kemi mooy lapputoob mi le Mustafa yaa moom jumaa jee xarnu beeg ña gëmoon sa baay gaalug murid yi le yaa ko yor ba sa machine du raay gaalug murid yi le yaa ko yor ba mbaay machine may emparante ba di xelal sa machine du raay noru wilaayati mooy machine ba wa wastoo fuxta jaala muride yaay seen wéeruwaay sag leer a joll fi nun ba leeral waa tugal moo tax ba labbi wàcc njurbel naa la kaay sag leer a tax nuy xor xoral bay xoy xoyal yaa tax ba labbi faale wuñ isaa laay sag leera tax nuy xor xoral bay xoy xoyal yaa tax ba labbi faale wuñ isa laay sag leera leeral njàmbur ak siin ak bawal leeral mbaboor leeral mbaboor ak i caay caay yaa muntaxaab nu muntaxaab nu muntaxaab yomal xiyaamati boole leen nu cëmbar ya waay أنت المقدم وخليفة في الورى وحد القديم نيادفا كدا باي أنت المقدم والخليفة في الورى بعد القديم نيادفا كدا باي جنانك يوتي خليفة يا كوغن لسباي بمو جن سيني سرين جن سيني باي giñaani kuy woote xalifatu yaa ko gën ne sa baay ba moo gën seeni sëriñ gën seeni baay dendalale xulafaaw yi xaw naa araam yaaram du gam-gam leeg sa gan yamu leeni baay yamu leeni baay yamu leeni baay dendalale xulafaaw yi xaw naa araam yaaram du gam-gam leeg sagan yamu leeni baay yamu leeni baay leerug cosaan nga xewoon fa mbàkke foyoo ko yow labbayka cam su la wuy siwul cam su la wuy siwul mooy saay-saay na warta sarxan ma xarban Mustafa samsul waraaya faw xaweer ab leeraay xut boo ngi gaay wuy si wul dañ laa xamul géej gaa ngi am xaayaa na ngi mooy wey ba xaay xut boo ngi gaay wuy si wul dañ laa xamul géej gaa ngi am xaayaa na ngi mooy wey ba xaay baxarul xaqiiqati wa sariati wa nadaa ju yafooru lil waraa yaay jenn waay yaay mbambulaat baxru nadaa sangu leen te duy yaay ndox mu teey ku la tabbi tooy ku la mandi taay yaay mbambulaat baxru nadaa sangu leen te duy yaay ndox mu teey ku la tabbi tooy ku la mandi taay yaa murtajaab nu murtajaab nu murtajaa yawmal xiyaamati ñi ñu yaakaar nañ ñi saay ku la am di ree koo amuree ku la ñàkk ruus ku la reew ku la roy du ree reew yand mbaalaa xub cafaay ku la am di ree koo amuree ku la ñàkk ruus ku la roy du ree reew yand mbaalaa xub cafaay yal nañ la fal te nga ful nu bi jaayikum koo fal du faaleeb ranq mbaalaa xub kuraay waajoo safoo day gën di safta dootunu soof ku ko weddi seet kase dootu kaas tey jii baraay ku la xas ba soof day gën di soof te dootunu saf ku la soob mu war ci naaru góol ñu tebal di raay yal nañ la soob yal nañ la saf yaa Mustafa ku la soob mu sol jalaabi mbaa mantoog baraay ku la am di ree ku la ñàkk jooy yal nañ la am yaa gën ndey ak baay ak xarit yaa gën na jaay ku la am di ree ku la ñàkk jooy yal nañ la am yaa gën ndey ak baay ak xarit yaa gën na jaay Cheikh Moustapha yaa namp ngor yaa donnu ngor yaa donnu mbër yow ñaari wet yi nga càllaloo dunu nit ñu waay yaay Moustapha ma ñu tànnee ko ki di ko belli haat ju ko belli haat ba ca balla ay sa samaami baay ngay Moustapha ma ñu tànnee kokki di ko belli haat di ko belli haat ba ca balla coket seen na jaay say waame taw na fi sow wal na fi penku bi koo may mu sarse bitig bu raw bitigum sukaay du xeppi xool ngir kerse moom lum ngeppi def say kàddu wecc na bongu buur si ñe yoni médaille du xeppi xool ngir kerse yow loo ngeppi def say kàddu wecc na bongu buur si ñe yori médaille ayaa xutbul wara ya Mustafa ba yaa karabu ko loo fi xiin bu mu naax saay wa ataalawum raka bi samaanika rabbuna yaa tax murid yi di siyaare ka joxe hidaay wa ataalum raka bi samaanika rabbuna yaa tax murid yi di siyaare ka joxe hidaay way kat wadaa way Moustapha bam koy ko fal maa koy wayal mi la Moustapha doom moo di baay waykat wa daa way Moustapha ba mu xëy ko fal maa koy wayal mi le Moustapha doom moo di baay Moussa Xadimul Moustapha moo deeti way mi le Moustapha ku ko feeluwul mooy saay-saay Moussa Xadimul Moustapha moo deeti way mi le Moustapha ku ko feeluwul mooy saay-saay yaa murtajaam nu murtadaam nu murtada xabli ridan wa ridal xadimi ka doon sabaay yaa rabbi salli ala habibi muhammadin maali wa xadaami ko kaa di baay yaa rabbi salli ala nabi muhammadin maali wa xadimi ko kaa di baay يا ربي صل على النبي محمد ما ألي وخديمي كوكادباي شيخ محمد المصطفى يا رب كن كن الله كن كو أكسو يا كن فيب كن من الله شيخ محمد المصطفى يا رب كن كن الله ci penku ak soow yaa gën fépp kenn mënu la xasal fadaay la fi dunya wal axirati yaa man ci toolu Serigne Touba bi te kenn mënu la man Mouhamadul Muxtaar mi way way wii de sab géwël laa ñaana nga dolli ma ay may ndaxte yomb na la daa jëf lu jara way ni ngeen jóg way ko ndax li mu def lu toll ni mboolem ña daa jëf gaañi xam nañu la antal xalifatu yow yaa wuutu bàmba bu wér yaa bay sa toolu bay ba booyul góor ñi xam nañu la lislaam di yaa tax mu yaa xaadira ki tijaani waaw waaw mbooloo mi wuy si nanu la cheikh mouhamadul moustapha ibnu xaadimal moustapha cheikh mouhamadul moustapha ibnu xaadimal Moustapha yow sa jaloore ci réew mi ñëpp ñëpp ci la salaali ilaa wala si maaliku naa wala li wa sambi yaa salamri wal xamal la tuufaan ma nooxin defoon gaalam ga jàlli ñoñam la xam jul Moustapha defaraay bi jaarindu la tuufaan ma nooxin defoon gaalam ga jàlli ñoñam laxamdul Moustapha defaraay bi jaarindu la fatan su jaaxun karimun xaabidun warixun yaa doon waa ndam li ëpp ci say mbàkke kenn rawul la yow yaa tara raay ba jëm Tuubaa saxaar gi di ñëw Tuuba ku wàcci saare Seex Bamba sant la yow yaa tararaay ba jëm Tuuba saxaar ga di ñëw Tuuba ku wàcci saare Seex Bamba sant la askey nee naa la askey war na kenn ku ne askey Sëriñ Bamba askey Mustafal kuma la baabul muriidi gannaaw Seex Bamba caab ja yaa yor doom ba ubbi nga mboolem bunt yi benn tëjul la kafa bi ma jaa al Mustapha ñëpp gis jumaa ja murit xam ngeen ne Cheikh Mustapha mooy saayibul kumala kafa bi ma jaa al Mustapha ñëpp gis jumaa ja murit xam ngeen Cheikh Mustapha mooy saayibul kumala man sant naa am di Cheikh ak ñam yi le fëkkëram góor ñaak jigéen ñaa nga fay baaw doy nga yàllaaw man sant naa am di seex ak ñam yi li fa këram góor ñaak jigéen ñaa nga fay baaw doy nga yàllaaw yàlla nañ ko bay diine juy sax far di law ba dajal ne leen amiin ndax no am yërmande yàllaahu yàlla nañ ko may diine yuy sax far di law ba dajal ne leen amiin ndax no am yërmande yàllaaw am dee saxal ndigalal baayam ji jumaa ji taxaw ña taxawoon waaru nañ ci yàlla yàllaaw am dee saxal ndigalal baayam ji jumaa ji taxaw ña taxawoon waaru nañ ci yàlla yàllaaw am dee saxal ndigalal baayam jumaa ji taxaw ña taxawoon waaru nañ ci yàlla yàllaaw yàll nañ ko may ak noteel lislaam ji bég na ci moom mu jiite góor ak jigéen ñuy bég fa yàllaaw jumaa ji am na ci ndam loo xam ni kenn du ko jot faykat bi yàll na koo fay muy bég fa yàllaaw saxaar gi teer si na tey Tuuba ci kaw ndigalam la soog si moom doj yi doy di jóor fa yàllaaw yaraama yow Moustapha yaam ngeneel ak i may aw fit akuk tabee ànd ngor fa yàllaaw yaraama yow Moustapha yaa am ngeneel ak i may aw fit akuk tabee ànd ngor fa yàllaaw jaaraama yow Moustapha yaa am ngërëm ci lu wér te dënga terle nga yaay jàmbaari yàllaaw jaaraama yow Moustapha yaa am jofeel ak i may gëm na yoo xam na yaay wéetal fa yàllaaw yaa am jaloore ca njaareem am jaloore ca Tuuba am jaloore fa Taayif gëm nga yàlla huttindoo de ak nay de yaa leen fal ba dootuñu loof yaa leen bégal teg fay jàmbaare yàlla wu baax kat bi yaa mata way jàmbaar ji yaa mata kañ fees na sawraaya yaa aw yoon wa yàllaaw yaa gindi gox yi fii réeroon bañ géweelu fa Tuuba seleer ga sar na ci ñoom ñuy sant yàllaaw alhamdulilahi rabbil alamina baril ak cant war nanu ngir soppeem ba yàllaaw alhamdulilahi rabbil alamina baril ak cant war nanu ngir soppeem ba yàllaaw alhamdulilahi rabbil alamina bare tig cant war nanu ngir màggal gi yàllaaw alhamdulilahi rabbil alamina bare tig cant war nanu ngir màggal gi yàllaaw sali salaatan bi tasimina laylawo fil ali wa sahbiya am ndam fa yàllaaw sali salaatan moo andi seex bamba ca biir mooy waaja sali salaatan بتسيم علينا في الآل وصحبي يا حمدا فيا الله سلي صلاة إنك أنت دلا خالا كنيان dami sa xol amul kañaan koo gis defal ku yërmande sëriñ bi noo ngi lay dagaan te di la xaaraan ak ñaan yow mi sa xol amul kañaan koo gis defal ku yërmande te li la yalwaan ak a jooy sunu lori xol yi ba fam ñu wooy ngiraaj yaakaar sa du sooy kawe nga booleeg yërmande